saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa coow lay animé débat yi mooy coowut CNG kañ la fi Alioune Sarr di jóge ak kan moo koy wutu bu fi président Alioune Sarr jógee ana kan moo koy wutu ci bopp CNG bi loolee mooy débat bi saa su nekk saa suñu xëyee ci la ñuy nekk ba ngoon jot ñu sangu tëri journal ba dafa xëy ci personnage u Tyson ba xam ndax mën na ko wutu wala déet amal ab sondage foofee ca dëkkam di Kaolack Kaolack ga mu fekk ba xëy nañ ba àddu ndax Tyson mën naa jiite CNG bi wala déet ëpp ca ñañu tàllal micro nag nangul nañu ko bëgg nañ mu yore ko nañu ne mën na ko te ko yoree mbir ma dox micro sondage ba ñu doon def ca Kaolack mbooleem ku ñu tàllal micro rek wax ja la mën naa yor CNG ndax jàng na mën naa yor CNG ndax dal na mën naa yor CNG ndax xam na làmb mën naa yor CNG ndax loolu képp ko dese mbooleem la waa Kaolack wax boo ca génnee waxuk Tyson mën naa yor CNG wax ca jeex ñoom la ñu jàpp njort ko gëm ko mooy Tyson mii ku ko jox CNG mu doxal ko nin ko bëggee ñoom waa Kaolack nag Moussa Ndiaye président école de lutte Balla Gaye dafa dëggal seeni kàddu moom la mu xamle te gëm ko mooy Tyson a un bon profil pour diriger le CNG bu dee yore CNG rek doxal ko bu dee téye ko képp ngir avancer làmb li ni mel Tyson mën na ko xam na ko te am na ci place président du CNG demande beaucoup de temps et d'énergie te loolee Tyson mën na ko xam na ko le prochain président doit être un administrateur te noonee la Tyson mel man li ma jàpp mooy Tyson ku ko jox làmb ji mu doxal ko rax ca dooli ne CNG bi la ñu war a ko fële te indi fédération une fédération est mille fois mieux qu'un CNG dem fédération moo gën fuuf nekk ci CNG tafaati nag booy ñaa de ña doon amal seen face à face ca sànni ca seeni kàddu Boy Niang 2 bu école de lutte Boy Niang bu Pikine la mu xamle mooy on doit tirer le chapeau à Alioune lu lamb yépp danoo waroon di ko tëggal di ko feccal di ko tadagal ndax lu waay waxadi waxadi boo gisee nen nen a ngi président Alioune Sarr liggéey na fi liggéey bu mu ayib am na fu mu jële lamb am na fu mu ko yóbbu kon jëmm joojee dañ ko war a féliciter encourager ko bu dee ci wàllu nguur nag ku fallu da nga folleeku nguuru sunu borom képpadul jeex waaye foofee fa a sori ndax Matar Ba moo yor cëggal gu yam bu fi Alioune Sarr waree bu bawal mbooloo ne ca tonn CNG sax daa yombul diriger le CNG est une lourde responsabilité dama bëgg ñoo xam ne jiite CNG du affaire bu ndaw lamb ji kay dañoo waroon a organiser combat bu mag sargale ko Alioune Sarr te booloo doon benn di xàccandoo di dóorandoo lamb ji leen koy doxal moo ñu bokk bëgg-bëgg bokk couleur yi ñuy défendre man biir na ma leer na ma ne bu ñuy booloo di am ndam ñeneen ña jàpp bu ñu booloo danañ am ndam mooy waa parcelle gannaaw bu garga de góor a soog gars yeeg si ak Franc ñooy waaj ñëw le journal ba xam mooy Franc bu par mbooloo kuy jege Papa guddi yi moo ko gën a moom sax il presque les deux pieds à Jambar Wrestling Academy te li ni mel moom bañu ko nëbb ko ndax nee fu ñu gis Papa Sow danañ ko fa gis bu dee bu facile léegi ñu gis ko muy défendre couleur Jambar Wrestling Academy bi le njort nañ ne dootul yàggati tuuti ñu dégg ko ca écurie ba bu leader ba Gabar ay saison blanche moo ko sonal bu seen beneen leader ba Marley moom it ñàkk ko jàpp bu dee Pape Thiam 2 defetam ba ca caatu Yoff moo ko pénalisé bi la seen 4 défaite ya aatu 2 bu Papa Kane moo daan safal bu Bawol bi la seen 4 victoire ya aatu 2 moo daan safal bu Bawol Moustique 2 moo daan Africa Pip aselem Arsenal 2 moo daan xaaxaam bu plateau aatu 2 beneen combat ba Gana Seras 2 da koo daan daan Gabar Singh 2 bu dee seen coach ba Iba Dieng la mu xamle mooy suñu problème yépp mooy suñu ténor yi bëreewut Gabar Singh Pape Thiam 2 ak Marley bu ñu bëree mbir mi du demee nii waaye lu jiwa jeexul jógu fa nañu continuer liggéey te xool suñu kanam jërë ngeen jëf mbokk yi lii moo nekkoon li gën a fës ci étu yéenekaay bi ñu leen jox lig daje ba ëllëg incha allah